muy El Malick Ndiaye euh, li ma ci dégg man suivre ko ci réseau sociaux yi mooy dafa am benn ojo bu ñu génnee ojo bi euh, xaw ma dafa fuité xaw ma daf ko wax ci benn groupe xaw ma fan la ko waxee mais ojo bi wax yi ñu wax dafa doywaat waar trop. parce que wax nañ ci ne euh, déjà dañu jox ay député sénégalais xaalis ku ci nekk cent millions ba mu toll presque ci boo ko calculer ci ay huit milliards mais li ci gën a graaw ci audio bi loo xam ne moom a ci gën a dérangé euh, kiy wax ci audio bi xaw ma ndax El Malick Ndiaye la wala keneen la euh, daf ne. Euh, xale yi dem leen ponti lundi euh, dem leen waaw na et puis na dem nañu dem ponti euh, magasin yi comme champs comme di leen wax ne dem leen ngeen ngeen kase foofu ngeen jël la fa nekk alalu jàmbur ya fa nekk muy genre waxin ak genre doxalin boo xam ne gis nañ ko fi gis nañ ko plusieurs fois et damay artu parce que dama jàpp ne genre wax yooyu buñ ko fi bàyyiwula wax yeneen ak yeneen i problème dina am ci réew mi am na ab jamono bi ñu njëkkee attaqué kër maître El Hadj Diouf defoon naa benn interview ma ne lii ñu commencé nii di désigner ay ay leader politique di leen joxoñ di euh, pousse ay nit pour que ñu dem attaqué ji seen kër buñ ko defaatee ça va finir dans un bain de sang lu taxoon ma wax ko parce que dama jàpp ne tey boo nee xale yi dem leen ci kër leader politique yi nga ne leen sax bu ngeen demee di ngeen fa fekk xaalis mooy dem leen attaqué ko jël xaalis ba fa nekk leader politique yooyu bu dee par hasard je dis par le plus grand des hasards dafa fekk situation manifestation dem ba policiers yi mënuñu leen défendre dinañ defendre seen bopp te civil koo xam ne du policier du spécialiste du maintien de l'ordre bu demee bay défendre boppam li mu mun a jur mooy ay nit yu dee te exemple bi may citer souvent mooy exemple l'affaire Rodney King bi amoon États-Unis vers les années quatre-vingt-dix benn noir américain la bu policiers yi jàppoon dóor ko biñ ko jàppee dóor ko policiers yi ko dóor condamné ñu dem tribunal condamné wuñ leen noir américain yi mer. mais mu am déferlement à mu am déferlement à Los Angeles. Mm. mais déferlement bi mu amee noir américain yi au lieu ñu yem ci manifester dañu dem attaquer ay boutique gu jàmbur. surtout dafa am benn quartier bu nekk Los Angeles bu tudd Korea Town euh, maanaam euh, foofu coréens yi ñoo fa gënoon bëri donc am fa boutique yu bëri ñu attaqué boutique yooyu pour jël li fa nekk mais loolu moo indi ñu bëri ñu dee ci mbir moomu parce que coréens yi ils se sont défendus. comme États-Unis dañuy permettre nit ñi ñu porter ay armes dañu génnee seen pistolet tiire nit ñi donc 60 personne yi dee ci affaire Rodney King mais police États-Unis reyu leen nit ñi ci seen bopp ay civil ñoo leen rey donc loolu ñuy def di wax xale yi dem leen ponti ngeen attaqué wala dem leen marché zeng ngeen attaqué dem leen nangam ak nangam bu ñu ko bàyyiwul parce que pour man loolu bu fi amatee du politiciens yi rek ñooy defendre seen bopp mais commerçant yi nga xam ne dañu liggéey seen àdduna yépp tabax seen mbir ñu xëy benn jour yàq ko dinañ défendre seen bopp tamit mais euh, pour ce cas particulier boo dégloo audio bi euh, par moment tu doutes est-ce que lii El la muy benn beneen bi y a un Sénégalais vivant à l'extérieur interrogé par Pape Alé qui assume la paternité de cette de cet audio là gis naa sax waa forum du justiciable ñuy inviter la justice à faire attention sauf que cette fois-ci il des doutes et puis euh, ku tàmm interagir ak euh, ak ak El Ndiaye di nga xam ne euh, c'est pas son son son mode opératoire c'est pas sa façon de de de faire y a y a des problèmes. waruñu mun a jël. yóbbu ko ci audio il y a des doutes sérieux. il a des doutes. il a des doutes c'est clair man. Euh, xàmmewuma baatu El Malick Ndiaye clairement comme ni ngay ni nga ko waxee yow. ni nga interagir nga ak moom lu bëri. Euh, mais waa ji ma dégg mu ne moo wax mbir mi ak voix bi ma dégg ci audio bi niroo nañ donc on peut penser peut-être que effectivement waa jooju moo ko wax mais wax ji dama ne ak ku ko mënti wax parce que tamit euh, yoon bu fi nekkee c'est pour doxal loo xam ne ñépp ci citoyen ñoom ñoo ci yem. c'est-à-dire da ngay def ñu teg la defuloo ñu bàyyi la donc bu dee ñoom mënuñu prouver wala ñu amuñu ay éléments yuy prouver ne wax ji El Malick Ndiaye moo ko wax gisuma pour quoi ñu war a téye El Malick Ndiaye parce que El Malick a a euh, ñu war ko fa téye deux heures de temps maintenant je di encore une fois que genre wax yooyu ak ku ko mënti wax ak foo mënti nekk ci àdduna devoiru état du Sénégal la mu def en sorte que yow moomu nga dellu si ci réew mi ba yoon jëflante ak yow ku ko deful nag waxu ko yoon bu ko tegee loxo nekkatul yoon. mais parce que je je je vois dans la relation de de l'observateur euh, de ce de ce de ce de ce mardi que les gendarmes enquêteurs déglu euh, ils ont voulu euh, prendre les téléphones El Malik euh, nanguwul lui il nie. Euh, être l'auteur de cette euh, de cet audio là et que le juge a demandé le mandat de dépôt contre lui xam nga euh, pourquoi mooy poser problème bi léegi dafa en fait. il a aussi le cas Aliou euh, Aliou Sané euh, arrêté euh, pour une manifestation interdite mbir mi di dem ba ci ay chambre d'accusation le procureur di di def appel est-ce que tamit mbir mi nekkul di di di di ëpp sans pour autant dédouaner c'est-à-dire des propos yooyu c'est c'est à incriminer mais tamit jàpp nit mu am des doutes sur l'authenticité de de de l'audio nga privé ko de liberté l'affaire Aliou Sané fi ñu ko nar yóbbu yëpp pour une banale participation à une manifestation interdite est-ce que mbir mi nekkul di jéggi loxo est-ce qu'on n'est pas en train de restreindre les libertés politiques des gens tout excès tubaab bi nee na est nuisible maanaam olof nee na lu ëpp tuuru te euh, bi ma fi ñëwee la dernière fois waxoon naa ci kaw Alioune parce que pour man déjà euh, problème manifestation au Sénégal bu amul de des problèmes d'ordre public de menace de troubles à l'ordre public des menaces surtout yu grave yoo xam ne mën na indi ay problème yu débordé warul tax ñu jàpp nit waxuma laa di ko yóbbu prison waxuma laa di ko juger waxuma ko waxuma laa juge bi may ko liberté provisoire parquet interjeté appel Euh, ba appel boobu ñu dem chambre d'accusation di ko juger donc loolu boo ko gisee en fait dafay déjà benn dafay niru lu ëpp dafay niru singli dafay niru ne dañuy utiliser justice bi nga xam ne justice la pour ñëpp pour euh, téye ay nit teg leen fenn pour que du ñu bouger du ñu def duñu dindi je pense que nit ñi tam waruñu fàtte ne liñ leen jox ndénkaane la maanaam réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk liñ leen jox dañ leen ko dénk ci te liñ leen dénk li ñu bëgg ñu doxal mooy ñu doxal yoon donc bu ëppee ba ñëpp gis ne dafa ëpp ñëpp gis ne liñ doon xaar ci yoon yoon doxalul loolu yoon daf fi nekk di singili ay nit simplement bu boobaa dootul nekkati yoon te damay wax encore une fois yoon justice mooy téye réew réew bu amul justice